ñëw lakk këriñ te këriñ bi boo ko lakkee sax pour jaay ko encore problème la ndax këriñ bi boo ko nar a lakk tamit suñu taati garab yi gor pour lakk këriñ te ñu loolu sax dañ koy ñaawlu donc euh, gouvernement yi daal maa ngi dund yaakaar est temps temps Macky Sall su ma gisoon Espagne dem dama ko daan wax fii su ma gisoon Espagne dama daan dem waaye tey bu ma falee Sonko maa ngi toog xaar di xool naka la Sonko di def pour ñun ñun jeunes yi euh, tey euh, boo doon conseiller Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko nga leen di conseiller ne leen seen téeméeri fan yi ngeen di njëkk def ci bopp réew mi euh, euh, lu nu war a soppi daar daar daar daar loo xam ne sénégalais dañ koy soxla lan la doon doon. Euh, la cherté dund bi cherté dund bi maanaam dund bi daa cher trop su dund bi chéré des métiers pour ñu mën a soppi dëkk bi faw ñu wàññi dund bi d'abord pour ñu mën a commencer liggéey liggéey bu baax man loolu laa gis. ndax mburu bi mi ngi ni cher na farine bi cher na ceeb bi surtout ceeb bi surtout ñun ñun ñu nekk si bitik yu ndaw yi sax pour nga nar a jënd bitik kii ceeb pour ñu jaayaat da ngay am problème euh, moo tax may naan man daal euh, su ma sañoon si dund si cherté dëkk bi la war a njëkk a jublu waaw lan la président bi di xaar aussi ci jeunes yi parce que jeunes yee ko fal jeunes yi di xaar pour mu defar Sénégal wàññi dund bi mais moom it lan lay xaar ci jeunesse bi yow lan ngay conseil jeunesse bi. Euh, man maa ngi conseil jeunesse bépp jeunesse bu mu toog xaar président comme man mii duma ma toog xaar président moo tax ma ñeme woon di jël sama xaalis di sol essence pour jàppale ko donc loolu su ma ma naree toogaat mooy échec la si man moo tax dama je dois encore continuer de me battre jàppale ko encore waaw du ma toog di ko xaar tam waaw li ma mën a def pour ma mu ñëw fekk si ma Euh, dinaa ko def maanaam me battre pour moom mu ñëw fekk si man li ma jàpp waaw maanaam comme même jardinage dinaa def pour aussi améliorer sama dund man maa ngi ni gis su ma tëjee fii guddi géej laa dee dem moo tax toujours mënu ma toog di xaar euh, président parce que tamit du man kenn maa nekk di jooyantu am na ñu bëri ñuy jooyantu mais aussi euh, man li ma def dama ko war a wax pour moom tamit mu xam ni ki man def naa waaw daf ñu war a ñuy jàppale surtout les jeunes parce que nous nous sommes battus pour ñu élire ko sa kaddu gu mujj lan la euh, xana xana am mbekté euh, c'est une première fois pour moi am ku ñeu fi dima dima laccé di def interview greenview pro euh, ma ngi leen di gërëm di leen sant di contane ci yeen torop ndax li peut-être mu am mais man musuma ko gis waaw comme yeen ñoo ngeen ba fi di def benn interview ma ngi leen di ñaan ngeen delu ak jamm waaw yalla ngeen ak jamm ngeen fekk famille ak jamm ñi gisante yenen at sama yaay ñi ngi lay jaajeufal maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit. waaw tey nag ñu ñëwoon fii ci Kamabel fekkee si Kacineen bi euh, ñu gis ne tey joolaay wane na na aada ak cosaan tey naka nga ko dundee. a ah, lii moom yàgg na joola yàgg na kii cosaan yàgg na fonk cosaanam ndax Kacineen ñun bu ñu juddoo fii lañ ko fekk suñu bàyyi bu ñu juddoo tamit fii lañ fekk Kacineen te chaque deux ans dañ koy def waaw. à défaut année corona bi la la la kii mais normalement chaque tous les deux ans dañ koy def waaw dañ koy def année l'année paire duñ ko def l'année impaire waaw l'année paire lañ koy def mais fii lañ ko fekk daal waaw ñu gis ne dëkk bi euh, euh, chrétien mi ngi fi païen yi ñu ngi fi musulman yi ñu ngi fi te da ngeen bokk di dund dund boo xamante ne dund bu mucc ayib la ngeen bokk seen lépp ba pare bëgg a gan lan moo indi euh, loolu noonu. dëgg la comme la ñu wax nous sommes tous de sénégalais ay sénégalais la ñu xam taranga la ñu xam fii joolaay nag taranga boobu moom defe naa fii la man dama naan sax fii la commencé parce que gan dañu souvent dañu wax ne dañu dañu bëgg gan que doom bu dëkk dëkk bi gan bu ñëwee moom dañ moom la ñu gën a kii pour euh, waa gën a fonk que euh, ñun xale xale dëkk bi waaw waaw ndax gan moom kenn xamul tey yow moom gane si na la suba yow mën nga gane si feneen waaw moo tax gan bu fi jógee dañ koy teral waaw. Euh, ma gis na ci katineen bi euh, comme sër bii nga woddoo nii euh, xale yi daanaka njulli moom la lañ leen joxoon mu nekk sër bu sacré ana lan nga mu mën a wax tuuti ci sër bi. sër sax dañ ci xaw a ragal ci sër yi te pourtant du dara nag c'est bañ be ba foo dugg fi Casamance nga ne sœur Bandial sœur bi lañ lay wax Bandial rek mo am sœur bi bo kep ko ko gis mu am ko xam ne u Bandial jabar Bandial la am wala amna na benn mbokk Bandial motax mo mu am sœur bi mais sœur bi typiquement c'est c'est Bandial Bandial ñoo mom sœur yi wa bi ni lañ koy commencé après cuub ko mu doon uh, ni wa sœur bi ni lay mel. wa bi ni bés bu paree nii lay mel. waaw. maanaam buñ koy defar nii lay mel. su paree mu mel nii. bu ñu paree cuub ko rek nii lay mel waaw. ñu gis ne sër boo xam ne ci ci cérémonie banjal yëpp moom lañu uh, def kacineen enterment uh, lël mariage waaw. waaw. c'est sacré parce que toute culture joolaay yëpp li ñuy def sër bi foog mu bokk waaw sër mu bokk même musulman dañ koy suul ak euh, ak perkal ak yooyu mais bu ñu joxee euh, am na benn cosaan bu ñuy def foog sër bokk ci ñu joxe xaw ma sagar jaam njaam daal waaw waaw foog sër bi bokk ci waaw catholique moom dañ koy suul païen tamit dañ koy suul waaw bu ñu suul pratiquement moom mooy fokk mu nekk ci daal waaw. ñu gis ne Kamabel nekk na teer bu riche gàncax goo xamante ne ni liñ fi mën a am li mu mën a génne ci économie bëri na euh, lan ngeen di ëpp ban liggéey ngeen ëpp li ngeen di def fii ci dëkk bi ci suuf si. xanaa béy ceeb waaw ceeb rek lañuy faral di béy gerte bi duñ ko dañ koy béy mais pas tellement mais ceeb bi la ñu gën a béy mais l'exode dafa def ba ceeb bi béyatuñu ko comme suñu maam yi liñ ko daan béy waaw suñu maam bu njëkk ba doo gis ku jënd saako ceeb boo jëndee ceeb ration bi dañuy naan téye pauvre moo tax nga jënd ko. mais actuellement c'est la contraire foog nga jënd saako ceeb parce que l'exoture tax na ba ñëpp dem école bi lépp ñëpp a ngi dem daal waaw ñëpp a ngi dem mais xam naa bu yàggee dañuy dellu si si mbéy parce que mbéy mooy jógal dëkk waaw mbéy moo yore dëkk. waaw dëkk balaa mu balaa mu avancé foog euh, gars yi béy waaw. sama yaay Sénégal am na président bu bees muy Bassirou Diomaye Faye euh, naka nga ko dundee. ah kontante la mais bu ma sañoon mu nekk euh, sama sonko nekk foofu mais comme joola ak séeréer ay ay kii la ñu daal waa ay kal la daal séeréer bi joola bi moo tax ba séeréer bi toog kontante la. kontaan nañ ci loolu trop waaw. Euh, tey ñoom ñaar ñooñu muy Bassirou Diomaye fay ak ak Ousmane Sonko soo leen doon conseiller tey nga ne leen lu ñuy soppi daar daar daar fii ci Sénégal sénégalais soxla nañ ko yow lan nga leen di conseiller. xanaa ñu ki ñu mobiliser ñi ñi culture ñi kii ñi béy ak waaw ñi béy béy daal moo mooy tax ñu mun a génn ci lu bari waaw béy parce que sénégalais fii ceeb la ñu xam. ceeb la ñu xam amul kër sénégalais boo dugg fekkaloo fa ceeb amul bu ñu ki sañoon ñu ñu béy waaw bañ a exporter ceeb waaw loolu laa leen conseillé daal ñu mobiliser ñu waaw béy bi waaw béy ceeb bi waaw ñu favoriser. sa mujj lan la. maa di remercier yéen xale yi jógee fële ñëw ba fii. indi lii assister suñu kaccineen bi waaw kontaan nañu daal kontaan nañu mënuñu leen fay maa ngi leen di ñaanal egg jàmm ni ngeen ñëwee dellu leen si jàmm fekk seen famille si jàmm waaw loolu laa leen ñaanal daal beneen yoon ngeen dellu si siyaat ñu ñaan fii xëy na 2030 bukut bi am ngeen ñëw fekkee ko waaw incha allah waaw incha waaw kay merci beaucoup